que suñu perte aussi dafa am loo xam ne ni yokk naa ko ci li Banda wax mooy que ne il faut dire les choses comme telles ñun dañu am manque de solidarité gis nga solidarité ci suñu biir moo doon problème bi. dund nga ko ak en 2012. dund naa ko. en 2012 manque de solidarité bi li tax Wade rek euh, nguuram daanu. non Wade nguuram gi li ko daane woon. c'est pas les mêmes facteurs c'est pas les mêmes déedéet en vérité. bon y avait la question du troisième mandat et cetera et cetera loolu ñu Macky Sall levé woon na ko mais pouvoir aussi boo ci defee douze ans ñaari mandat souvent da ngay dem usure loolu mooy dal maire yeeg yooyu l'autorité locale ak ñoo ñëpp donc dañ naan attention ñun kat saawaay ñii liñ waroon a def def nañ ko ci douze ans il faut ñu mañ ñu sénégalais duy fal mais day folli en vérité donc solidarité boobu mën revenir ci maanaam ensuite suñu comportement xam nga tey nguur day jaayaate tey dañuy ñaanal ñi fi toog yàlla bu ñu yegg foofu parce que nguur dafa am ay privilèges yoo xam ne boo ko toppee rek dangay beew bew mu mu yëkkati la ba nga xam ne tey am na ñoo xam ne man leer na ma ne tey pour ñu toog dem fi ñu daan dem dootuñ ko man couper tout lien ak euh, le peuple et cetera yooyu yëpp yàgg ci pouvoir dina ko indi par exemple euh, beneen bi mooy aussi euh, populisme xam nga tey dañoo gëmloo ndaw yi ne leen et eh, soo ko ko waxee ndaw loo xam ne toog na 12 ans liggéeyul wala mu am master am liggéeyul wala baykat bi nga xam ne ni day am problème mu jiw ak engrais et cetera ak dund gu cher gi donc la question de l'emploi nga ne leen man dinaa leen gë def ngeen am emploi chaque jour ñu ne xale yaa ngi génn di dem bitim réew dugg ci gaalu looco yi nga ne man su ma ñëwee dinaa régler cette question nga ne wuy réew mi dépense yi dañoo bëri avion présidentiel bi euh, mu ngi nii li muy côté Sénégal dafa bëri maa ngi xaar na gars yi ndax ñoom danañ supprimer l' avion présidentiel am déet parce que aussi daf ci bokk nga ne ministre ah oui oui waaw waaw di dem def vol commercial c'est-à-dire que dañoo wanoon populisme la dañ doon wan ne Macky Sall dafa jël avion boppam jënd avion et cetera yooyu yëpp discours yaa ngi fi ah evar yi ñu ngi fi dina ñëw donc ndax danañ ñoom danañ bàyyi avion présidentiel dem jëli vol commercial pour dem tukki est-ce que ministre yi ñu waxoon ne dafa bëri tey ñu ngi ko def quinze ministre la ñu waxoon ne dinañ ko ko def ñoom. quinze ministres waaw ah, la ñu waxoon moo waxoon loolu Ousmane Sonko. ci discours ci programme Diomaye mu ngi ci quinze ministres. dama projet PASTEF. non non il a un ñi dañoo fal Diomaye bu ñuy laaj Diomaye la ñuy laaj. maa ngi ñëw te bu ñuy laaj Diomaye dañ ko naan sa programme yaa ko bindoon mu ngi nii. waa mais xam nga programme boobu. mu ngi mel ni tey. nga ne woon Sénégal seen PSE. fan la jóge woon ci programme yoonu yokkute. le plan Sénégal émergent. c'est toujours Macky Sall. mais c'est toujours Macky Sall mais fii aussi c'est toujours Pastef et le projet ñoom ñëpp loolu lañ lay wax il te xanaa déglu woo premier ministre bi mu génnee. di di wax la composition du gouvernement ak les missions. mais dañoo waxoon réduction drastique du de vie de l'État. quinze ministres on a 30 ministres et deux 32 et le premier ministre pourquoi je le dis parce que. xam nga waaw waaw maam maam xaaral ma wax la ko ministre ak 5 secrétaire d'état xam nga la moo tax ñu. secrétaire d'état rang ministre la. muy 30. mais muy 30 le ministre secrétaire général euh, le ministre secrétaire général du gouvernement il a rang de ministre ministre la ñuy wax. Ah, <laughs> mais attention kon nag non bu ñu noonu dina métti ah, ah, déedéet ministre la ñuy wax. non pour man je m'attendais à un gouvernement de quinze ministres mais réalité pouvoir bokkul nag ak opposition donc maa ngi doon analyser force gars ñu ñu miroiteloo nit ñi ne leen voilà réew mi doxul mën na gën a neex et cetera et cetera mais loolu tout opposant boo ko tegee wane programme boobu maa ngi xaar aussi. ñu ngi fàttaliku président Macky Sall ba mu yore Sandaga saaku ceeb ba. oui je suis d'accord loolu aussi c'était du populisme. mais juste non mais da leen doon miroiteloo. non xam nga du benn. xam nga populisme bii xam nga président Macky Sall il a été républicain et waxoon na ne dund gi dafa cher saako ceeb a ngi nii dinaa ko wàññi bi mu ñëwee daf ko wàññi parce que saako ceeb daf ko fekkoon à vingt cinq mille francs ah oui daf ko wàññi ba demoon na à un moment ba douze mille dix sept mille et cetera mu yéegaat mais kañ la yéegaat no no no kañ la yéegaat c'est-à-dire que euh, moi je pense que il faut aussi bu ñuy analyser ñu ñu def ci un peu de sérieux euh, c'est important pour man mais en vérité populisme Macky Sall mosu ko incarné Macky Sall mosu la wax ne tabula rasa mosu la wax ne li fi nekk dara baaxul fi on nous parle d'un gouvernement de rupture mais man j'aurais aimé que rupture boobu ñu matérialiser ko par des actes que